lettre lañ gisoon mu génn ñu ne yaa ko bind après bindoo ko euh, loolu est-ce que lu am la daal simmi la def la yaramu neen bi ma duggee rëbës dama jéggi bunt bi ñu avancé romb bureau administration romb euh, infirmerie romb fu ñuy dencee yàpp bi romb buntu cellule Khalifa Sall ñu jàdd ñu simmi ñu simmi ba ma set wecc simmi dañ ma ne simmeekul ma simi sama chemise simi sama pantalon toog di leen di seetaan ñu ne ma déet des na ma ne leen ah ñu ne ma waaw ma simi sama caleçon maanaam bu ma waxee simi nit yi mun nañ ne maa ngi dese woon sama silip solu ma woon caleçon solu ma woon silip maa ngi meloon ni sama yaay bi mu ma juree noonu lañ ma simmee ba pare ne ma jonkonal ma jonkon taatu neen ñu ne ma sëkkatal ma sëkkat ñu ne ma baax na ma solal sa yére ma sol sama yére donc effectivement noonu la demee ñu jël samay journaux xotti ko waaw ba pare di ma yuuxu naan ma ah di nga xam ñun ñooy ñan ma ne baax na ah waaw donc loolu euh, effectivement dal na ma est-ce bi loolu loi loi daf ko santaane détenu bu fa ñëw dañ la war a simi ba nga set ñaar moo am bi ci njëkk mooy règlement intérieur rëbës dafa wax ne képp kuy dugg rëbës dañ la war a fuye waaye xam nga fuye dafa may ay xeetu fuye fuye mën na bañ a egg ba simmi benn ñaareel bi mooy am nañu dugg rëbës te kenn simmi wu leen taatu neen fuye nañ leen nag man lan moo tax ñu fuy lan moo tax ñu fuye ma ba egg ci man ci taatu nen xam naa ne bokkoon na ci naxaral ma bokkoon na ci toroxal ma bokkoon na ci ma gis rëbës ñu def ma loo xam ne bu ma génnee ah naa xoolaat bu baax naa noppi naa ne tekk naa ne meng xam naa loolu bokk na ci li leen tax a jóg waaye man boo gisee sax may naqarlu sama simmeeku sama simmi taatu nen bi ma simmi du pour man dama jàpp ne bu dee man mën nañ ma def loolu waaw Duudu Mohamed Lamine ñi nga xam ne ñoo fa nekk